Euh, maa ngi tudd Badiane Ndeye mari jaw présidente euh, Ndeyu daar euh, Pikine Nord. tey jot ngeen ay ndimbal yoo xamante ni daanaka da ngeen liggéeyante ci seen biir ndax mën nga si ñëwaat ak yëg-yëg bi nga ci am. waaw kontaan nañu trop nag ci donation bi nga xamante ne ONG bi jox nañu ko ndax wax dëgg yàlla lu bare jaar na fi te gisuñu ko waaye tey nag weddi gis bokku ci tey moom monsieur maire Amadou Diarra. toppatoo na projet bi projet bi agsi na wax dëgg fa yàlla teg na ko ci sama loxo dem naa retiré 6 millions yi dugg na si suñu loxo ñu ngi koy santale yàlla bu baax a baax. naka ngeen ko fas yéenee jëfandikoo. waaw ni ñu ko fas yéene liggéeyee mooy di def des AGR li ñuy wax activité génératrice de revenu noonu lañ koy fas yéene liggéeyee ndax ndeyu daara yi am nañu habitude di liggéey loolu donc ñun xamante nañu naka la ñuy def ba fructifier ko fa pour mën a fexe ba projet bi même bis bu jeexee tamit bu boobaa ñun dañuy continuer di doxal projet bi loolu la. Badiane, juste un petit résumé en français. Vous venez de bénéficier de millions de francs CFA de ce projet. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous sentez réellement en ce moment? Oui, on a, on a reçu le, le chèque de 6 millions. Et c'est bien entre nos mains. Et on va faire en quelque sorte de, de, de, de, des AGR, comme on dit, activités génératrice de revenus, hein, pour, pour, faire, euh, la, pour faire euh, la pérennisation de ce projet et la prise en charge des enfants talibés. Euh, à, à, notre manière, à notre comme, comme on a l'habitude de le faire. Donc ouais. vous comptez euh, vous réunir et travailler pour augmenter cette somme Oui, c'est ça, ça qu'on va faire. On va s'organiser, on a l'habitude de le faire et Inch'Allah, D'ici six mois, on vous appellera encore.